يزن هادي يزن وجاد farata bis na amaarahim dal lu dul jullit farata bis na amaarahim ndax aju batu sa tontu sëriñ tuba wa badu isaaratihi ak lenn junjam muy lu mu junj wax ju mu joxañ daal waaw wa badu wasaayaaw ak lenn ci ay dénkaaneem li baadi muridihi ñeen lenn ci taalibam noonu la ko sëriñ Abdoulaat tudde téere ba noonu la ko sëriñ tubaay tudde téere bi dañuy ay junj yuy jëriñe ak leetar yu mu daan bind ay ay kilifa ak dénkaane ci téere boobu boo demee ci mujjug téere ba dafa wax ne alaykum bil malikiya فإنه مطهرة ومتنورة وإن رأيتموني أفعل ما يخالف المالك يفعل به فإن لي خصائص لا أمركم به سيرين بي بابا بوبا لا واخني دينك نا لي يين نيما ياكار اك كودو سما كادو نغي جيفانديكو غير مالك نغي اوبتيكو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تي جولي فاتا دونتا غيس غير ما may may julli kàbbar ubbi ko bismillahi rahmaani rahiim yi yéen na ngeen dalee ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax man damaa am ay jagleel yoo xam ne kenn fékkuma ci yàlla jox na ma man li ma leen digal wéy leen ci du jooy leen ci fi di ubbi ko alhamdulilahi rabbil alamin ndax nee na ki nga xam ne dafa toll ci bindu danaam xamul dañu ko accordé wala dañu koy récité bokkut ak ki ñu may ba mu denc ay seegam ca banque mu ne yéen i na ngeen di sant yàlla rek noonu kon nag moo tax ginnaaw kii du julli farata jàng la ñaan la moo tax mu ubbi ko bi bismillahi mu teg ci wasal wasallama tasliman mu ngi julli ci yonent bi muy Seydina Muhammad di ñaan dolli ko xéewal ak mucc mu nekk ci moom ci ni ko sëriñ bi waxee woon rek sëriñ Cheikh wax na ko jëlul dellu ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi mu ne maqsadu xasidati duhaay lii jublukaayu tagg wuy jur ñaan gu ñu nungu la maa tagg wuy jur ñaan gu maanaam ci tagg la woo xam ne liñ ci jublu ku ko jàng sa aajo fañ ñi ñi ne xasidatul hamdi wa sukri yenn tiir yi loolu la ñu bind day xasida cant bu ñu ëmb ci xol la ak cant bu ñu wax ci làmmiñ ndax ne li ma sant yàlla dafa bari li ma defal defalu ko kenn moo tax ma bëgg koo njukkalilu ko kenn njukkaliwul woon ci tool bi islam ko xol bi feesee dell nag ma sant ko ci làmmiñ yu dégg cant xol gi fees dell xam nañu ko ndax xol lu mu ëmb loolu la cër yi jëf bi nga xamee ne sama xol bi yàlla rek la feese moo tax cër yi musta laal lu ñu tere xol bi mësta wonk lu am nag mësta laal lu ñu tere mësta gànt ndigal ndigal yëpp def na ko moom jeex tere yëpp moytu na ko ba mu jeex li ñu doon joxe lépp jox nañu ko nee gaar loolu sëriñ bi moo ko bind ci téere yu bari mu ne kon xasida gi ngir sant la ak ñaan mooy nag aljaalibati insha allahu taala li saydi wa nasri mu ne xasida la boo xay day bijj ndolleen ak ndimbal bu soobee yàlla bu soobee yàlla ji sëriñ bi dinaa ci wax ñaari wax ndax yonent bi yàlla moo ko wax ne sëriñ bi dinaa ci wax ñaari wax ndax yonent bi yàlla moo ko wax ni ko wala taqulanna li shay'in inni faa'ilun zaalika gadan illaa an yashaa Allah moo ko wax ci suratu kahfi yonent bi dañ koo laajam asxaabu kahfi mu fàttee wax bu soobee yàlla mu ngi leen bu subaa ma wax leen yàlla dal di muur xol mu xëy dikk di ko laaj ci yàlla wala taqulanna li shay'in inni faa'ilun zaalika gadan illaa an yashaa Allah bul ne dinaa def nangam ëllëg wala dinaa wax nangam ëllëg te néewoo bu soobee yàlla loolu bu mu amati جوم جوم جوم من بارك كوس لين على الوقت اللي يقلك تنيو بصوا يا الله ما رح ماني ما مشي الله يبغى موت ويا سما توجه كارك مو نجوا كارك تسرين تلا مم بنما نتاعها الله أن بنما نتاعها الله أنني مكرم يا سما يا الله بنات من كنيش الله يا سما جدي بنا بتكنا بقول سما يا الله بنات باي جناو قصدي دينا يوم تبي باب الله وباب الله لم يكن مرتجع جناو دين يا الله نينا na da ñaanal yalla moom am na ba nopp waaye dañu ko fay defal ngir ñu ci fàggu suñu sëriñ bi lim ñu sédd séddutee leen lu mu jiital ci insa allahu ngir nun la waaye du ngir moom yem soob na yàlla te dégg ngeen ko noonu mu ni insa allahu ndeem soob na yàlla taalaa kay aji kowe mu ni xasi diggu luy bind luy bijjle li seydi ci ndolleen wan na si ak ndimbal mais bu fekkee da ngaa yor xiiwal yoo bëgg muy dolli ko jàngal téere bi mu dolli la ko ba mu bari bu fekkee da ngay wut lu la jafe nga bëgg ñu dimbali la jàngal téere bi mu dimbali nga am ko faam koy sa njot mu ne tax dégg noonu la tudd mën nag wahiya xaa'ilatun fi maskani xaa'ilaha tuuba arasa allahu taala min kulli makruhin wa maxuufin bi jaa iman haajara alxaailu ilayha li ihyaai sunnatihi sallallahu taala alayhi wa sallam mu ni xasida gi wa hiya qaailatun xaailatun aji wax la lay firi wa hiya qaailatun xaailatun aji wax la lay firi waaye maquulatun maanaam lu ñu wax la ndax xasida gi waxul boppam borom xasida gee ko wax muy Sëriñ Tuubaa mu ni xasida gii gu ñu wax la fii maskani qaailaha ci dëkku aji wax ja maanaam ki ko wax mooy kan Serigne Touba dëkk bi mu ko waxee mooy fan mooy kan muy Serigne Touba. nee ngeen gis Touba gi ngeen di dégg li yàlla dugal mooy maay borom ngeen gis muy ngeen di dugg di ñëw ga ñu ko duppee muy garab ko dugg ki nga xam ni mooy borom Touba te nekk ci biir Touba di defar téere bi moo moo wax téere bi waxee ko ci waxukaay bi. moo moo wax téere bi waxee ko ci waxukaay bi mu ne arasara Serigne Abdoulaye wax na. xarasaha allahu la yàlla wax néewul wala yahrusha néewul yahrusha xarasaha la wax wala yahrusha mooy yàlla yàlla wattu tuuba yahrusha mooy yàlla dina wattu tuuba sëriñ Abdoulaye nee na yàlla yàlla wattu tuuba bu neexee yàlla mu bañ danga ko ñaan rek damaan mu waaj la diggante waaj ak def lëf mën na faa dox waaye ne loolu dara amu ci yàlla wattu na ko ba noppi ne tuuba wattu nañu ko ba la yàlla wattu na ko taxalaa kañ aji kawe min kulli makruhin ci lépp lu ñu sikk ak lépp lu naqari wa makruhin ak nee na lépp lu ñuy matt wattandik ak lépp lu ñuy ragal ak lépp luy sit ak lépp luy natt tegtal bi moo lay wan ni loolu moo am boo duggee Touba fàtte sa problème yëpp ah. loo bari bari soxla boo dee yokkos Touba fàtte lépp ndax day dëkk boo xëy ne aajoom dafa faju ay yitteem yëpp faju na lépp lu ñuy muslu aar nañu ko te lépp lu ñuy daw aar nañu ko te lépp lu ñuy wut indi nañu ko ci biir kaste nañu ko ba dootu yàqu te bu ñu la ko joxee togal ca tempé ba ba sax gis nga ci histoire yu bari loolu ñëpp a am ci géej gi yàlla da ko ni da ngay génn Touba loi da am te doo mën a raw na ci téere bi ni képp ku ñu suul Touba doon dem ñoom ci man la mais xooluñu ci ñoom ci man la xool mais fii moom amul condition moom ku ñu suul rek jeex loolu Serigne ma ko na ko ci téere bi di ngeen ko gis ci biir téere bi muy nag bi jaay man ci darajay ka nga xam ni haajara gàddaay na alxaa'ilu aji wax ji waaw kon maqulatun jim wax li ma noon xaa'ilatun la man la maqulatun leen leer maqulatun jim wax li ma noon xaa'ilatun la man la maqulatun leen leer ba ci alxaa'ilu aji wax ji kon xasida du waxul boppam borom xasida gee ko wax mu ni mi ngi ko def ci darajay ki nga xam ni haajara gàddaay na alxaa'ilu aji wax ji ilayha maanaam jëm ca moom gin jëmoon lan jëm ci dëkk ba maanaam ndax bu noon ilayhi yi ni ci yonent bi ndax i bu noon ilayhi ñu ni ci yonent bi la jëm waaye ilayha mu dem si kon ci Touba mu ni sëriñ bi dafa gàddaay génn si Touba nag ànd ak muritam te sëriñ moo si na ma waxtaan na ak sëriñ Massamba Mbacke mu ni ko waxtaan na ak sëriñ Touba mu ni ko ne ci teew Cheikh Ibrahima Fall mu ni ko sama dëkk boobu ne mu woo a Ibrahima ñëw mu ni ko loolu ñu wax naan maa ndax xam nga ko ci wolof Cheikh Ibrahima ni ko maa mu ni ko indil ma ko te Ibra ba topp sa xel ba indi ma ci lu bari indi ma ci benn rek benn laa la wax. yaa Ibra dem jël man jokk ko jokk ko jokk ko ba mu tudd tapaat tapaat ba ma saa saa saa yu mag yooyu ginnaaw benn la bu sëñ bi mu yul ko ba ma mu indi ko yul daal mu indi ko mu ne ko Ibrahima Fall defal ma ci sa yéene ci dugub dugub bi suuna nan ma ko duyal li ci man dugg rek nan ko ci def loo ci def rek fekk defal toll noonu xam nga boobu saako moom dina sonn <laughs> nee naa Seex Ibra di ko di ko di ko rokkat ba a dugg bu ci duggatee saako ba xotti ko te kon li mu ci defoon tuuru nee mu di ko jal di ko jal di ko jal ba mu jóge i defaraat taal bi sëriñ bi bi ngir dundal di dundal yonent bi ndax sunna yonent bi ko feeñal réeral na maa ko yéere ba mu génn ma fàppal ko ginnaaw moom set ma teg ko ci tund bi ñëpp di ko gis ma rafetal ko ba ñëpp xemmem ko ma aar ko ba dootu yàqu ma dugal ci ñëpp teg ci yoon bu fu dugg dootoo génn nee na loolu moo tax ma defal téere bi waaye du ceeginu muy damay dolli ko dara nee na du dara lu muy dolli ko te am na ci boo demee ci biir téere bi la wax ni dem nee na du dara lu ko te am ci boo demee ci biir téere bi dina la wax dem gi ma dem ci géej gi nee na rek moo tax ma dem ci géej gi du dara lu ma doon dolli ko ci yàlla te loola la ko indi boo demee ci minanul baaxil xadim fi muji sa draaxil bi sëriñ Mouhamadou Basir liggéey dafa am ku sëriñ Tuubaa woo di ko leeliloo ay weem moo leeli baaraamu sànlañ bi teg ci baaraamu digg bi teg ci baaraamu dëy ba del teg ci baaraam bi ñuy wax ndoomul njekkaan loxuma bi ñu teg ci sanitaire maanaam jëlale baaraam yi ndax loolu borom téere yu jëkkee dañuy wax ni boo ko dee leeloo say way doo wàññi ko bu fekkee say way da koy jëlali ni doo wàññi ko doo wàññi ko cim xel doo wàññi ko wàññi ko cim xel doo wàññi ko cib cër maanaam ngaaraan gumba yooyu ak yàgg du la dal te itam sa wërsëg du wàññi ko di yàgg nga am ba yàgg nga ñàkk bañ naa indeysaan ba ngay génn réew mi yooyu maanaam na nag mu ñëw di leeli sëñ ba sëñ Tuubaa leeli baaraam sax di dali jaan loolu loo ci jublu mbaa lu ngeen gis ci téere jëkk yi loolu ngeen gis mu ne ko hmm, loolu na ngay muslu njort la daw foofa ndax loolu njort loolu sànn ko fii waa wa nax nu fii sa njort ci loolu mi ngi ci xur nu nekk dem ci gi doon ne ko dara rek yàlla toxul lu leen rek xut bu xaw si dootu sama kër ku toog ci sama jal bi yaay nekk xut bu xaw si te xut bu xaw si balaa dara am yàlla dina la ko wax yëgal na ko bu la nee bu ko bu ko neexee bu ci bokkul dara ba ñeent fukki fan yi mat yàlla ne neex na xut bu xaw si te itam mu wéyal loola bu fekkee nee na ko néeguma yàlla faase loolu li ko waxal li nga ko bëgg ñu defee ko noonu mu ne ku toog ci sama jant bi yaay kooku loolu rek a taxan may dem jigéen ci waaye ku yëkkalim man naa ko waxaat man la xutbu xaw soo téeméer ak fukk ak ñeent ñoo koy dal sëriñ bi ne téeméer fukk ak ñeent yi ko dal ñeent ñi ab daal la ñu tudd ñeent fukk yi topp nu la ñu tudd juróom-ñaar fukk yi topp nu xabaaw la ñu tudd ñeent fukk ñi ñoo ëpp doole juróom-ñaar fukki nit kenn ku ci nekk bu dara jógee ci yàlla bala ñu ko jaar li fenn ngéem malaayika koy def ngéem ruug muy jël la ngéem wërsëg muy joxe si la ngéem wërsëg muy wàññi la ngéem wérug muy joxe mbaamu di ko dindi la lu mu mën di doon daal ci gàttal balaa dem dina gis kenn ci juróom-ñaar moom malaayika bi balaa sañoo wàcc dogal dara ci jaam ñi bu jógee ca borom jaam ñi day jaar ca kooka koros bu mu yëkkatal dina gis kenn ca juróom-ñaar moom malayka mi balaa dañoo wàcc dogal dara jaam ñi bu jógee ca borom jaam ñi day jaar ca kooka kobos bu mu jëkka dajeel la ñoo yem dara ñoom juróom-ñaar fii sëriñ bi ne ku mu ca kobos wan ko mbir ma bu fekkee lu ñu war a ñaan ñu muslu ci la mu ñaan ci ñu muslu ko ci darajaam bu fekkee lu ñu ñaan mu am la mu ñaan mu am ci darajaam bu fekkee mu door ko jox kenn ca ñeen fukk yi kobos kenn ca ñeen fukk ñeen fukk ñooñee ñëpp ñoo yem daraja waaye sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na ca téere ba juróom-ñaar fukk ñooñu kenn ku ci nekk darajaam ëppee na daraja yi lu yàlla bind ca jamono boobee ci kaw suuf ëppee na daraja yi lu yàlla bind nit ak jinne malaayika ni saare fukk ak ñeent ni mu ëppee benn doole nee na ëppee na ko noonu maanaam te ñoom juróom-ñaar fukk ñooñu ñoom bu ñu boolee seen daraja yooyu kenn ca ñeent fukk yi ëppee na leen doole noonu te ñoom ñeent fukk yooyu bu mu boolee seen daraja kenn ca ñeent ñi dara xut bu kaw suuf ëppee na leen daraja noonu te sëriñ bi nee na kenn ci ñeent fukk ñeent bu ñu boolee seen yëpp ñeenti dara yi bu ñu ko boolee xut bu xawsu ñeenti dara yi bu ñu ko boolee xut bu xawsu neex ni leen ëppi dool ni mu ko mën a misaale mi ngi mel na kay jaay jooxee dañu ko jëmee hôpital rek fekkoon bu toll ci watees dal moo tax kuy wax ak këdoo teggi waaw ndax ndax nga faa defar mën nga faa yàq xam naa ñoom sax duñu yàq waaye nag daal defar foofu moo gën waaye daal fexe ba bëggal ak teggi mu ne kon dundal sunna foofu moo tax mu taxawal lii bu bu ko bu ko noonu ma ko waxee rek ci kàddu du ma koo yaatu ndax boo ko yaatulee moom mu jël waxtaan bi ñëpp mu ne wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammad wa sallam mu def salaatu wa bi ndax yonent bi nee na mépp ci salaatu ala nabi ci yenn ci téeréem ni lépp lu waay def jiital ci astaghfirullah téeméer teg ci ala salaatu ala nabi boo man téeméer ak fanweer ak ñaar boo ñaanee ñaan ko ba noppi tegaat ci salaatu ala nabi téeméer ak fanweer ak ñaar Sëriñ Tuubaa ne jëf li am na waxul téeméer dafa wax sax ne wax na ko sax booba dañuy wax ci ngéej mi bismillahi rahmaani rahim ak asbunallahu wa ni'mal wakil sax booba dañuy wax ci ngéej mi bismillahi rahmaani rahim ak asbunallahu wa ni'mal wakil mu ne sax sunu min al basmalati wa xalbu min asalaati li nabii hasbu mu ne kon moo tax nag julli na ci yonente bi ci ñaal benn téere bi julli ci yonente bi mujj téere bi mu wax auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmaani rahim auzu bi kalimatillahi taamaat min sharri ma xalaqa mu muslu say sharri ma xalaqa mu muslu saytaane ni auzu dinaa muslu billahi ci yàlla maanaam dinaa mus ci kàttanu yàlla mi ne seytaane ci yàqaluk seytaane arrajimi kadi buñu jam maanaam seytaane mi yàqale maa ngi def kàttanu yàlla muy baaraat bu dox sama digg ak moom ba du yëg ci man du yëg ci sama koog du yëg ci sama loon maanaam baare naa sama digganteeg seytaane doxale yàlla bi sama digganteeg seytaane doxale naa kàttanu yàlla bi dama diggante lépp lu ma moom ak seytaane doxale naa kàttanu yàlla gi diggante lépp lu ma am ak seytaane bu seytaane mënut a gi daal du yëg ci lu ma am du yëg sama koog du yëg ci sama man waaw mun nag bisimilah rahmaan rahim mu de mu waat ko ni onze bi kalimaat yi maa xalaqa sëriñ bi def koo def ñetti yoon ndax boo demee ci téere bi ñu wax faakihatu dawaan ci addis yonent bi ci téere sarari sall bu mag la yonent bi wax dafa wax ni ku sëpp say tànk wax onze bi kalimaatillahi taamaati min sharri maa xalaqa yoon lépp luy looy fi la lay ba saa boo xëyee wax onze bi kalimaatillahi taamaati min sharri maa xalaqa ñetti yoon lépp luy looy fi la lay ba wóor na yonent bi boo ko jóge woon du la màtt ci bis boobu bu yëngutu yi bëgg nga wàcc ko ba mu daw ndax a'uuzu billaahi mina seytaan rajim moom bi kalimaat lay taamal min sharri maa xalaqa ci ci moom la bëgg mu wàcc ko ba mu dem waaye na benn saaba bu toog ak yonent bi ñu ñëw ni ko doo si yéen kër ya lakk na ni man de sama kër la bokk ci ñu ni ko kër ya lakk na jeex doo si mu toog ni man naa déglu waxtaanu ñu ni ko kër ya lakk na ba jeex doo si mu toog ni man naa déglu waxtaanu yonent bi man dool du yàq sama waxtaan sama kër bokk ci gaa yi dem daw nit ñu ña woyofu gëm daw ba ñu dawee wala ñu xamul secret daw ba ñu doyee fekk seen kër yëpp lakk kër waaja des te doom rek a ci nekk xanaa ñu faxasu doom waaye dara lëkkul ñu gën si nag ñu ko yow ci lam nga boof muy jël sunu waaji waxal danoon ko wax onze bi kalimaat lay danoon ko wax onze bi kalimaat lay taamaat yi sërima xalax ñett yoon bis noonu naqari doon dal te kër ko lakk léewu ma moo tax nag ma xam nga xam naa ko moo tax ma xam ne sama bokk di nga xam ni kon onze bi kalimaat lay taamaat yi sërima xalax jamono boo ko waxee ñetti yoon yàlla musal na la ci lépp la naqari ci bis boobu moo tax sëriñ bi digal taalibe yëpp ñu def ko jàng suba ak ngoon ñetti yoon moo tax dafa doon ci téere bi yoo xam ni tënk ko ci ni da koy jàng jàngaale téere bi yëpp ndax jot ci bëriwul waaye noonu la ko tënkee rek ba ko noonu bu ko defee nag taalibe yi leeralalante ko rek kenn ko ci mooy mu jokk ci laate ko ndax kenn ku ne da nga cee ma dem ci pension bi yor téeméer ci nekk yor junni ma dem yembar naa gaa ñëw leen ma paye leen defeen maa fi am xaalis xam nga sama téeméer mi ne jeex junni fi mu ne noonu ngeen ma ko xam-xam wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim لولي دم ولا حول ولا قوة إلا بالله ألي لازم لمن فري تي ساير دان ولا حول دي فري تيك توك ما نام كن أمو فري إيش تي فري يالي إلا بالله إلا ركني مليا كن أمو فري مو جار بطف يال لم كو بغي كن أمو فري مو جار بمو تي سيطان بباي مو يالي لم كو بغي إلا بالله إلا ركني مليا الهالي كي أجي كوي ألا ويمي كي أجي مات مدام سيرين جوار لكي تيني كيف فوق على سعلنا دي لا حول ولا قوة إلا بالله képp koo xam ne saxal nga di def la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim bis bu nekk téeméer nee nag ñàkk du la nuyu ak ràgg du la nuyu ak yàqu du la wuyu du la nuyu te sag roobu dogee rek la hawla wala quwwata teer la bu yóbbu la ci àjjana loolu sëriñ bi na ko ci téere fii ñetti yoon la ko ci ñaan gi ndax ñetti yoon yi ndax ñetti yoon yi benn bi day yéwénal démb benn bi day da lay ci tey bi ci def day aar ëllëg moo tax mu ñëwale ko foofu rek mu teg ci bismillahi bismillahi allazi la yadurru ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم مومتام امنا فين في سيرن بي بند جان نانو كو دارا جي مو بند بسم الله خير الاسماء اي خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي اسمه بركه وصفاء بسم الله الذي بيده شفاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء واخنا كو في ماي لا سيرن بي بند ني سي كيري ني جامونو بو خيي واخ لول بو wala ñu def ca wax sooy boo sukk lekk nee na dara luy lore lu la dara moom moo tax fii rek mu indi ñetti yi rek maanaam mu indi benn bi rek def ko ñetti yoon mu aar la musal la mooy bismillahi noo ngi sukkandiku ci turu yàlla la si buur ba nga xam ni laa yadru du mën a lor maa ismi ñi ànd ak turam yu sëy um dara fi laar di ci suuf wala fi samay di ceegi nit ci asamaan ndax woo aji dégg ay wax wa alxaani mu mooy aji xam jëf nee loolu boo ko waxee ñetti yoon ba tey dina la musal lépp luy lore boo ko dee jàng suba ak ngoon lépp loo xam ni dañu koy muslu yàlla musal na la jël ci barkeb laay jooju moo tax mu def ko ñetti yoon ni booy jàng si da boo ci nga baam ko ñetti yoon mu def rabbi ansalini munsalan wa baarakan wa anta xayrul munsilina loolu sëriñ bi def baarakan wa anta xayrul munsilina loolu sëriñ bi def ko ñetti yoon ndax loolu jamono boo xamee ni wax nga ko ñetti yoon sa toroxte kenn du ko gis sëriñ bi nee na foo wàcc nee na rabbi an suñu mun sa leen baarakal wa anta xayru lu feeñ ci yow mat lay doon ci barke laa yi jàpp ñoom dafa jàpp keneen doo fa loru keneen du fa loru te it kenn du fa yàqule ba ba nga koy génn nee na booy demit dem ak rabbi an suñu mun sa leen baarakal wa anta xayru munsilin te nee kër boobu nga ko wax bi ngay dugg ca kër gi it nee dina aar kër gi ba bis ba del si di ko defal ay xéwal yu fay wàcc si mooy rabbi yow sa borom an yàlla nga ma wàccee munsalan ab wàcc waaye mu baarakan mu baarakan bu ñu barkeel wa anta yow xayru munsilina yaay ngeen ji aje wàcc nit wàcc waay ba gën nga wax ko ñetti yoon mu tekki allahuma ya waahidu ya ahadu a'udhu bika min sharri saakinil balad wa min waalidin wa ma walad sëriñ bi danga koy wax ñetti yoon ndax loolu ya waahidu ak ya ahadu ñaari tur la yàlla ya waahidu ya ahadu ya waahidu ya ahadu ak ya ahadu ñaari la ci ya waahidu ya ahadu def bis sëriñ bi wax na ci yeneen i téeram ne koy def bis bi ne wax ñett ñaari tur yooyu fukki yoon ak ñett nee na muur na sa gëm iblis di ko di la ilaha illallah mos ngay deewaale jullit piir ngay doon waaw kon loolu mat di def na yaa waahidu yaa ahadu yaa waahidu yaa ahadu yaa waahidu yaa kenn ki yaa ahadu yow aji wéet ji maanaam ndax bu nee benn ma ak ah, ah, benn maanaam benn la ahadu kenn la bu nee waahidun benn ngay déglu ñaar mun la ahadun kenn la maanaam moo tax yàlla ne xul huwallahu ahadun ba mu nee ahadun ahadu moo gën a foor moo gën a foor ahadu loolu boo ko jéemee firi dafay jeexal waxtaan wi yëpp ndax loolu ci tasawuf bu xóot la waahidu ak ahadu ku ci nekk da am maanaam sa maanaam bopp moo beru waaye lu ci man di am daal nee na moom da nga ne yaa waahidu yow kenn ki yaa ahadu yow aji wéet ji ndax dañoo daje bokk mel ne maanaam boo firee kenn ki boo firee lii benn nga firee ki des aji wéet aji wéet ahonsu dinaa mus lu bikka ci yow min sari saakinil baladi ci ayu aji dëkke ab dëkk wa min walidin ak ayu képp kuy aji jur wa maa warat ak ayu lépp luñ jur sëriñ bi ni maa ngi muslu ci kenn ki nga xam ni mooy kenn ki moo wéet ca kennam nga te kenn fukki ko ca ndax bokkul ak moom dara bokkul ak kenn dara ci lenn ndax moo ane xuloo doon la tajhar bi salaatika wala tuxaafit bi wabtaqi bi lisaanika sabila wa qul alhamdulilahi alladi lam yataqis waladan walam yakun lahu sharikun fi lmulk walam yakun lahu waliyun min adulli wa kabirhu takbira yàlla nee na bokkul ak kenn ci lenn ndax lu ñu koy jàngam leen moo fa teg loola nee na kon man bokkuma ak kenn ci lenn sëriñ bi nit boo ko woo nag boo waxee ñetti yoon moom mi bokk la kenn ci lenn dina la aar ñetti yoon moom mi bokk la kenn ci lenn dina la aar ci ayu lépp lu jur ak ayu lépp luy jur ak lépp lu jur dëkk ak koy dëkkee. kon kay mucc lu jur yu lu ñuy jur mucc ci dëkk la koy dëkkee kay mucc nga. sëriñ bi saa boo ko jàngee doon mucc waaw seetlu ko sëriñ bi ni wax yoon bi ngay benn bi faag wala démb mi way te ca dara. te xam ni ñu ñu ko mu fa mu fàggul la ko ñu ne moo tax mu def ko ñett ñett ñett ñett sëriñ bi lu mu la bu daa wax sax mu wax wax ko ñett yoon sëriñ bi ne àqattu أقدت اللسد والأسود والحيطة والحقرب والسارق والطارق والعاقد والنافس والعين والسائر والإنس والجامع حنا وعن سبيل المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لولو نكو بن يون نينا بو يوسي سي تيوبي لولو نانكو واخ بن يون مانام لولو لمي تيكي موي اللهم من حقت فسنا موي تكنا تكنا جوجنا بام كيك تكنا الاسد كايدي comme rax bi gaynde lañ ci gën a miin ah al asada gaynde comme rax bi gaynde lañ ci gën a miin ak lépp luy fàdd wala wada ak añi ñuul ndax ay lépp lu guddi guddi borom guddi dégg nga ñu naan guddi am na borom lépp lu ñuul guddi la mët la jeex mu ne lépp lu ñuul moo xam dafa ñuule musiba moo xam dafa ñuule ak caay caay moo xam dafa ñuule lool lépp lu ñuul takk ci doole tur yi may bëgg a tudd moon mu ne fiir takk wal xayata ak jaani ñanguur wala xaqaraba jiggi fett wa saarixa ak ay càcc wa taarixa ak aji riñaante lamboow ay mooy ku dox guddi wala xaaqida ak aji fas mooy ku yàng ak wuñ def wëndeel ko ñaari yoon ba noppi nangam nangam mujje tëf li fii takk def loolu mbëru ne maa ngi muuslu ci ay ko mujje tëf li fii takk def aw mburu ne maa ngi muslu ci ay kooku wan naa fi sax ak aji fisli ja aji aji tifli ja wala ila ak borom bët bu bon lu mu xool mu yàqu wa saahira ak aji jibar jaan lu mu koy defe walin sa ak ay nit wal jaan ak jinneeg ra xam naa ba mu bàyyi nu waan jamil muslimina mu bàyyi wàlla mboolem julli nee na nag dinaa ko fiit tak ci junni junni laa hawla wala quwwata illa billahi dañ bi mën a ñaan mu ne laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim moomu mënoon ko ko def ñetti yoon am ca loolee ma wax léegi nag double naa ko junni yoon ni ci fiit takk ayo du jëm ci kii jàng téere bi xam nga ni téere bi ah doy waar la wala xawla déet fexe wala xawa déet déet kàttan illa billahi rek ko we àla sumi man mu teg ca fa sa yakfikahumullahu wa huwa samiul alim loolu mu teg nga wax ko benn yoon maanaam fa sa yakfikahum maanaam li ci sàlla defu ko ndin fi sàll ko waxee ما على شيء هو يهلي تسالة كما أنت تعلم مالك تسالة بل وقت فيني ميهم وقت في ميهم أك وقت في ميهم وقت فيني ميهم سرهم كل وقت في ميهم وقت في ميهم مرام فسيكفيك هم الله فسيكفيك إياهم ولا فسيكفيك هم مرام فسيكفيك هم يلا خلصت نلا فقال أي نيون مرام يلا خلصت نلا موسى كيون نقصة دفع جيجين لجم تيو يلا مكوح يونان تبي بابا يونان تبي دفع جيجين مني wala yasumka mina naasi fa sa yakfiikahum Allahu wa samiil alim kooku fa sa yakfiikahum wa samiil alim kooku am na ci yeneen nusux fii sëriñ bi benn la ko fi def waaye am na ci yeneen téere yu mu wax ni lépp loo ragal aw ayam nga wax ko ñetti yoon ba nga tàllal say loxo wax ko ñetti yoon nga wax ko ñetti yoon ba nga tàllal say loxo wax ko ñetti yoon banque say loxo tàllaat ko raay ko ci sa boo duggee foofa xiwal nga koy fekk sëriñ moo xam biro booy dugg la moo xam bu boo sëpp la moo xam looy wut nga ni fa sa yegg fii kahumullahu wa samil alim ñett yoon teg ni ko ci say loxo bankaat loxo yi tàllal ko nag raay ci sa yoon sëriñ bi am na fu ko bind fii nag da ko isma la dafañ ko fi noonu rek mooy kon nga wax loolu ñett yoon mooy yàlla dina la musal yaa fa sa yegg fii ko humoo xam saf na laa musal ci ñoom yéefar yi allahu yàlla wa huwa te moom assamiu mooy aji dégg di alhalim mooy aji xam ji maanaam yàlla mi dégg nga xëy lu muy xam na ko yahlamu sirra wa najwa te yàlla mooy ki nga xam ne mooy aji xam dara humb ko ndax yahlamu dabiba nam li horri fi fi salmati fi laylati zalma ala safrati sama yàlla ne xorondoo mu ndaw wuy door a juddi juddu lëndëm gu tar goo xëy mënoo gis fi sa tànk di tegu muy dox ci doj wu rëy na tànk bay dalee ko jóg yëg naa ko man ne kon kooku dara mu fuga mu ni kon kooku maa ngi koy dénk sama bopp na ma wattu li mu wattu woon yonent bi nga ma wax ci beneen tiir naa bi jasadi nabi haa bi jasadi min kulli an min kulli ma yesu suuna nabadi yaram ñàpp ci yaramu yonent bi yaramu tëral bi ñàpp ci sama yaram du gaarlu yoon bu mu ah nekk wallahu min ma ci def tuuti yey rek ndax kon nunu neen bu nu dajee war na noo jëriñoonte ci téere moo tax ma ci musal tuuti ay njëriñ rek di ko ci barxal tuuti ci musal tuuti ay njëriñ rek di ko ci barxal tuuti waaw sëriñ bi dane mu ni wallahu min waraihim muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfusin mu ni wallahu yàlla muhitun aje peeg la min waraihim seen ginnaaw yi maanaam yàllaa ngi leen wër ndomba maanaam mi ngi leen wër li cercle di wëree la mu wër nee na foo man di jaar yàllaa fa ne moo moo xam ci kaw la moo xam ci kajoor moo xam la moo xam ci kajoor la moo xam ci bawol moo xam ci ginnaaw la moo xam ci kanam la moo xam ci euh, kaw la moo xam ci ndijoor la moo yàlla la fa wër mu mooy bayit mooy euh, léeg-léeg muy weddi di saxal léeg muy saxal di weddi waaye li mu jublu huwa moom quraanun alquran la majidun ju màgg ba ca ëybal da mu nekk foo xam ne fii malaayika yi rek ñoo fay yegg di fa toxale di indi ci yonente bi indi ci nun ca ba alquran